waaw ça va ça va bien. sëy yaayam. sëy lay kay papa kii. sama xëy kii sama papa ya. waaw papa ça va. yaa ngi am jàmm bu baax. alhamdulilah noonu la nga sant yàlla bu baax sant yàlla bu baax. waaw ñu ngi bu baax. waaw waaw incha kër gi. kuy waxtaan. mu jëmale jëw bu rafet. waaw dina wax ne fi nga teg sa tànk. lu ko tegg foofu rek la. xam na dangay toog tout le temps doo sama nit la dafay ñëw fii dama samay course moo koy daw léegi kër gi dafay fi nekk mais su fi ñëwee su ma ko nee xoolal dawal ba ko fa am mu dem ñëw. fekk ma wooru ma su mu ñëw ne ma loo togg tey ma ne ko daanam ñu togg rek toog. waxtaanee ko. papa xaw ma kaa fenta wooy wooy bi neex moo ñu yaay. Ah. xaw wooy bi nii xa kone sëy baaxuy ma yaay sëy baaxuy zin ya dóor ba dama ya yóbbu ya fante ko ya yaa ba kenn du ya jëy eh kenn du ya jëy boobu géwél maama la sekkay maama waaw waaw nag daanaka nag loolu la woon rek dañu ñëw ndax papa wax dëgg du yooyu kese papa yow wax dëgg Ndeye Ndiaye waay yow du yooyu de na toog kër ga ah, amuñu amuñu amuñu xaalis amuñu ndogu après sama papa may ko nii nañ dem si say yaayam gay mi gay mi gay mi gay mi bu ñu demee may xaalis après ñu ndogu. ñu door rek. ñu door rek. te tamit waaw àdduna tamit nii la dimbalante la rek. tey mën naa dem ba du ma yor. ma daagoo samay tànk ba sa yow sama papa na. waaw papa li laa soxla mu yëkkati jox ma. yàlla ñoom xaalis ñu ñëpp. Ah, gay ñoo ko bokk. <laughs> te moom ku fi indi moom dama koy bëgg na dafa baax. <laughs> sama bopp la rek ñoo ko bokk. te yow keneen ñi taxi kooy. ah fan yii rek incha allah yow boo ñëwee rek papa li bëriwul jàpp si. li bëriwul. bëriwul de pourtant saa yow ñëwee fekk fi lu gën a bëriwul moom. ay waay ak yeneen sori wi. non yéen tam tam ñu ko bokk. et ça su ma yoru woon sax yoru ma taale ndogu rek dama leen. ay waay yëpp naa xaj si ma bopp na yàlla xay dama koy jox moom xaj sama bopp. amiin amiin waay amiin. yow jàpp ma fi. lan laa def. yow nga waxoon di nga ñëw kër ga pour ma ndogoo ya. ñëwoo. ah je me doon métti moo tax. nga ma sa numéro. doomoo ah. yaa ngi oo. am naa xaalis na tey du ma ko jox am naa cinq mille mu ngi nii sama mu mu ngi xaalis bu bay mooy mu ngi am na cinq mille mais day du yow doo ñëw da nga bon. waa kay. ah diggante ma si xëy na kon yàlla bu mu neex. tey sa kër ñax. yii yooyu fooy na de. gis nga nga xam ne bëgg naa la. Eh. ah kañ tay jii tay tay alhamdulilah ni maanaam six heures ah moom moom moom kay du ma génn tey maa ngi fi doom wax fenn yow rek laay xaar maa ngi ci kër gi waaw waaw kay waaw kay ñun waaw kay waaw kay waaw kay. jaajëf waaw kay jaajëfaat waaye jaajëfaat waaw kay alhamdulilah rabbil alamin yooyu du xanaa moo leen gaaw a rek yàlla dikk na waay. ah waaw waaw waaw de yàlla day dikk na léegi yow ginnaaw ah, boo leen gën a wax noonu da nga xaw ma sa njëkk yeeg ñooñu da nga leen yóbbul ah, sukkaru koor léegi dama bëgg yow yow foo nekk noonu nga ne. pourtant maa ngi nekk si Koungheul waaw waaw voilà wala léegi bëggoon nga ne Abdou na la abal cinquante mille nga nga jënd ci lépp lu ñu yaa ngi dégg nga ku nekk nga yóbbul ko suukaru koor nga ay ginaar waaw nag ginaar rek du xam naa ne moom xam naa fii 15 ci kanam ci weeru koor bi yëpp moom euh, ginaar la ginaar la ñuy ginaar la ñuy <laughs> ñuy reeree waaw waaw yàlla tekki di ko ba ngay xëy dem yor woon xaalis waaye xaalis day bette day bette waaw waaw léegi jëlal am waaw waaw la wax waaw la ab ab ab jox ma ab doon la la mooy wër ndax wër jox ma ab du moom. Abdou mu ngi ne. allo waaw El Hadj Moussa waaw. joxaloon ma sama soxna soosu seg si à euh, cinquante mille. ah dëgg may déglu nag yow bul ne bul ne xam nga dëgg la da ngay ver da ngay versé da ngay jënd dëgg la waaye man xamee ma caaxaan dégg naa si yow boo boo boo yow 6 heures pile la ma indi sa xaalis 6 heures ma indil la 6 heures bu ma indil 6 heures yi tamit ñëw sama kër. à 18 heures Moussa. waaw hmm. uh-huh. ah, ok. jërëjëf jërëjëf waaw ñu ko alhamdulilah. nii la kay su defee sax tey man maa ngi xalaat man tey fa laay bokk say dërëm salaamaaleykum. benn baat. papa Yamin. jaa ngi jàpp neex. naa def. loolu digaate sax. yaa ngi si jàmm. sant yaay sa papa. sa papa yow génn. yow sa ma sa papa ma oo ah. ñu fixé rendez-vous. Ah. ma ñëw fekkuma booy nga ma yow kay. Eh. dafa ñëwoon. Eh. dama am dafa mu sa papa Yamine bu ñëwee. Eh. wax ko booy naa yeeg yaay yaay ak moom. après mu ñëw booy mu ñëw ma toogee fii papa Yamine ñëwee. naa booy moom mu joxe nga téye ma. wax na la ma sa bu ñëwee. nga joxal ma ko lii dégg nga nekk ñëw naa fekkuma ko nekk après naa ko oo ko dégg nga. na nga jox de. non

at yi passé yëpp joxewu muyum koñ du génne sayax du génne daya moom day wooy boobu koy gi jeexee waaye xaaj jàkka bu juy day am jimi paa bu juy ya ngay jox jimi te jàkka dina fees buntu bi jàkka ja yaay taxaw paa bu juy joxe jimi waaye joxe bu juy yeeg paa juy yi nga am jimi tey benn baat. Ah. alma cinq mille ma jënd fii nii benn yoon kii. Eh. ma jënd fii ndogu benn yoon rek ñu yóbbaale ko. ah yaa ko jox. waaw. Ah, sama mu ngi leen moom yaa ndogoo tey. moom ma ndogoon man. Eh, papa nit ki yow juy nga ah ay eh, dina tuuti yaay ah, nga tëdd.